ngeen ne da ngeen bëgg a tabax fii pour la culture mu ne leen man bu ngeen koy tabax dana ci def suma loxo mu dig leen 2000 briques 2000 briques yoyu mu digoon leen mom la andi tay li nak yag na koy def yag na dimbale xalé yag na dimbale mak yag na dimbale jigen li du tay la ko commencé de avant mu nek maire dana dan dimbalé wañor yeen yéen war ngeen ko sédé man ngeen ko sédé du ko féetee nag lii nag commencement la ji Momar Ba lépp lu man dana ko defal xale ñooro moom ci boppam. parce que bu defalee xale ñooro bu defalee xale ñooro mu ngi mel ni defal na boppam ku defal xale ñooro moom mu ngi ne defal nga pour l'avenir parce que yéen ëllëg si bi yéen a fiy nekk yéen a yore dëkk bi. kon nag bu leen dimbalee mu ngi mel ni dimbalee na dëkk bi dimbale dëkkam nag war na ko ndax fii la juddoo fii la yaroo fii la jàngee ci lu baax. la culture est au début et à la fin de tout développement te développement lañ bugg yokkute yokkute lañ bugg ci lëkk bi kon nag munuñ bàyyi gannaaw culture muy caada caada mom, boo ko bàyyee gannaaw rek doo développer. parce que fi mu nekk nii li la koy wan mooy la culture a un primat sur l'économique fi mu ne nii bu la jam dég jamee danga wax ne eh dég jam ma de lu lay looy xalaat dem outil dal ah dama war dem set dal dal yu may sol dama uti dal yu may sol motax culture toujours mo jitu lepp culture nak boko baye gannaaw kon lepp du bax moy sookul bi mo kon nak dañ wara développer culture motax dim Momar Ba ci bopam lepp lo xamné mo ngi jëm ci culture dañ ci xaar tànk tubéyam ak lu mu ci man dana ko def surtout nak muy lo xamné ay xalé ñoo jog yëkëti loolu né ñun kat li kat culture kat dañ ko bëgg a développer fii mu gën ci sawar tàmbali la wan na leen ne leen kat yéen ñii ànd naa ak yéen lépp lu ngeen di def ci culture danaa ci dugal sama loxo lii déjà wan na leen ko 2000 briques mu jële ko Dakar may leen ko yéen war a tabax fii kon nag wan na leen ne leneen li mu leen dig itam dana ñëw incha allah loolu man moom naa ko assuré leneen lu leen dig dana ko def waaw man la Aliou Camara di chargé de la communication de l' association Malabar Family. bon yëg-yëg bi ñu ci am mooy mbégte rek pour le moment mbégte lañ si am parce que c' est pas évident nga dig nit ba pare daf ko. maire nag digg nañu 2000 briques tey indil nañu 2000 briques donc amuñ dara loo xam ne nii mën nañ ko ci rek lu dul di ko gërëm di ko sant di ñaan yàlla mu yokk ay man-manam. d'habitude nag moom buy def genre œuvre yi da ngay wax neen da koy def à son nom propre c'est-à-dire c'est pas des choses yo xamné c'est politique œuvre sociale en quelque sorte donc dans ce cadre là man wax si lañu jox ces 2000 briques là comme ni nga ko maison la maison des cultures urbaines de Nioro donc comme maison là bëri na affaire affaires xamné bëgg nañ ko fi def maire bi ñu commencé projet bi lañ ko wo dafa def déplacement ñëw ba fi exposé nañ ko projet bi li nga xam moy mooy sunu mbébét wax nañ ko ko motax mom mu commencé ces ces 2000 briques là mën naa jàll directement ci nga xam ne bëgg nañ ko def au niveau de cette maison là podium bi bëgg nañ ko defar commencé won nañ ko d'ailleurs nawit motax ñu arrêté ko bëgg nañ fi def ben salle euh polyvalente bo xam dañ am activité bu nekk dañ ko fi mëna a def comme nit ñi dañ fi dajé war na mëna am ay toilettes war na am aussi cuisine cuisine ak réfection réfectoire du moins donc yooyu mooy pour le moment des constructions yoo xam ne war nañ ko fi def pour le moment si maison bi. waaw programme boobu moom mën naa wax ne maire bu fi nekk ku nekk maire bu fi jaar bu ne accompagner association Malabar si activité boobu. mooy <clears throat> le côté culturel bi nga xam ne association Malabar famille, mu ngi koy au niveau de Nioro ñu gën si ràññee euh, le festival bi muy def léegi bëgg nga yaatal moo tax ñu bëgg def maison bi maire effectivement. Euh, concernant activité boobu noonu Malabar Family di def mu ngi siy jàpp bu baax comme ni ko ses prédécesseurs doon defee côté bi ñuy xaar mooy yi nga xam ni nii commencé nañ ko Nioro muy ay activité culturelle mu pérenniser ko mu fexe di jàppale yi nga xam ne ñu ngi koy def ñu continuer ko ma jël exemple euh, le festival bu ñu sañoon dañ day am chaque année mais ñu bañ a yem si loolu parce que y a beaucoup de choses sur le côté culturel yoo xam ne mu ngi doon am Nioro man gisatuma ko il fut des moments yoo xam ne euh, naar yi nekk Nioro séeréer yi joolaa yi yëpp dañ am possibilité exprimer wu si ay fête de l' ak yeneen activités yoo xam ne donc nga xam ne moo chargé de la culture au niveau de la municipalité war na travailler à ce que euh, ces activités la ñu di ko di doxalaat ñu xam ne Nioro am na am na tel askan am na séeréer am na tukulóor am na am na am na te loolu lu ñu ko mën a defee mooy rek par des manifestations culturelles donc yooyu lu a inclure le dans la dans le festival mais mën nañ ko aussi def de manière séparée dans des occasions yoo xam ne permettre na donc euh, agenda culturel war na war nañ ko gën enrichir enrichir ko ba pare mais aussi eh, di pérenniser activités yi nga xam ne déjà ni ñu ngi koy